les initiatives yi da ngeen xool ne ñun caniveau yi nekk à ciel ouvert ça fait combien d'années xanaa man damaa judd fekk ko fi te man màgget naa. waxuma laak nag bu ñu toogee tey ba suñu doom yi am xalaat am defar lii day joxe maladie suñu doom yi dañuy feebar te bu ñu feebaree ñun ñoo leen di faj ah te xale moom mun nga koy yemale fii mais fa nga koy yemale du fa yem mag ñi waxi noppi kon nag kuñ ci dimbale ñu jël te bu ñu dimbalee rek nañu ko sàmmal suñu bopp ndax ndimbal na ca fekk loxol borom bu ñu ñu ni nañu sét la muy bañ ñu bako projet wax ma nga ne da ko jël ji li wax budget participatif ci lañ ne nañ ànd ak moom pour jàppale ko boobaak léegi ñu ngi jéem a organiser koñ bi pour ñu nekk benn. bu ëllëgee ba xam ne defar nañ kaniwa yi nañ leen fexe ba surveiller ko ba kenn du ko yàq.

mu ne dafa bëgg lancer programme bi moo tax tey boo xoolee waa SONAGED UCG ñu ngi fi indi nañu matériel boo am solo indi nañu ay peel indi nañu yi nga xamante ni ñoom la ñuy liggéeyee. liggéey bi nag dañ koy organiser délégué wax na ko léegi bu ñu génnee fii tey dinañu accompagner comité bi ñu mettre en place benn comité de salubrité comité boobu délégué dina ki nekk. jeunes yi dinañ ci nekk mag yi dinañ ci nekk bu ko defee lépp loo xam ne ci wàllu saytu la suñu service yi nga xam ne ñu ngi ci quartier yi guddeeg bëccëg ñu ànd ko ñoom ba nga xamante ne fu ñu jógee rek bu ñu ñëwaatee dañ fekk ni jóg jaar nañu liggéey bu am solo dañuy lancer un appel à monsieur le nii mu ko defee seen seen seen ndar gu ndaw di ko ñaan buy commencé le projet de la fermeture des canaux à ciel ouvert di ko ñaan mu commencé ko à Ndargu Ndaw ndaxte la population de Ndargu Ndaw booloo nañ doon nañ benn ndax ku ñëw tey xool li nga xam ne mooy lancement Jàppal ma jàpp xam ne jeunesse bi génn nañ pour que ñu song benn bii jàppal bi ci ëpp solo bi ñuy wax jàppal ma jàpp mooy buñ ko nettoyé ba mu set ñoom ñu toog surveiller ko ba lii du fi amaat mairie bi nag comme ni ngeen ko xamoon euh, assainissement compétence transfert mais ñun année passée gis ngeen ñi ngi ciy def 620 millions mooy canaux yooyu ñu tëj tëj année bi bëgg nañ ciy def cent millions te Ndargou Ndaw la ñu njëkkee incha allah.